bonjour. Voilà, euh, chers internautes, vous êtes en direct, fii ci hémicycle bi. On est avec honorable député Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs. Réaction waaw déjà. waaw déjà il faut noter que dañu. heure la ñu waroon a tàmbali. il est moins le quart te tàmbali guñu déjà loolu rek. xamuñu xamuñu lu ñu fiy réglé encore parce que lu ñu war a réglé yëpp war nañ ko réglé ci conférence des président ak euh, euh, région de bureau mais pas ci ay couloir nii dañu war a ak ak respecter assemblée nationale benn ñaar def naa ni tamit li ñuy liggéey nii mooy projet bi dañ ko nar a retiré ah, ci révision article 87. non parce que la révision de la constitution jàpp naa ni amul lenn lu ko war a sabab ci fi ñu toll nii parce que bu ñu neewee dañu bëgg a rationaliser maanaam yaxanal alalu réew mi pour coupler ñaari élection yi kon dañu war a dindi dissolution définitivement ndax saa yu président de la république bu ko soobee rek mun na dissoudre te boobaa calendrier yi dootuñu méngoo donc bu ñu bu dee lu ñu wax dëgg la ci ñoom dañu war a dindi dissolution principe dissolution définitivement ñaareel bi xam nga lu indi dissolution mooy motion de censure may nañ ko assemblée pour mu mun a teggi gouvernement mais en même temps ñu may ki ñu war a teggi maanaam premier ministre ñu may ko possibilité moom mu dissoudre pas président de la république or ci suñu état bi président de la république amul benn responsabilité devant le parlement parlement mënul ci moom dara te moom mooy le chef de l'exécutif parlement mënul ci moom dara. mais l'article 87 parle que le président de la république mën na jël conseil auprès du premier ministre ak ministre de. non xam nga conseil yooyu moom. xam nga conseil yooyu moom euh, xalaatu premier ministre moom mooy li président wax rek loolu la premier ministre waaye dama a nit ñi dégg que li ñuy wax li ñuy wax euh, pouvoir de solution fépp fu mu am dañ ko dénk ki nga xam ne moom mooy ñëw ci parlement bi di di wax ak parlement bi di décider boo xoolee même France premier ministre bi mooy définir politique de la nation moom mooy ñëw ci parlement bi répondre parlement bi saa yu ko neexee woo ko ne ko sa politique bi d' accord nañ ci d' accord nañ ci nii boo boo soppiwul ñu jëlee na fi loolu moo tax tamit ñu may premier ministre wala président France mu dissoudre parce que boo defee motion de censure war nañu mën a fii président bu ko soobee rek nu mu ko soobee président de l'Assemblée nationale loolu la ñuy joytu ak député wu majorité en général lépp lu leen wax day jàll gis nga ni Assemblée nationale bi pouvoir de contrôle pouvoir de contrôle mooy càmbar càmbaral pour compte askan bi muy càmbar président de la république xam nga ne assemblée amu ko amu ko at mu ngi nii pratiquement dossiers yi fi gën a fës ci fonds Covid yi ci petrole bi ci yeneen ak yeneen waxuñu ci dara ci xale yi dem géej jéemuñu sax seet naka la demee donc pouvoir de contrôle bi nga xam ne mooy solo sa assemblée nationale dañ ko ko wekki te tegge ba pare bëgg saa yu leen neexee ñu di mais gëm naa ci li ma yëg nii dañuy retirer disposition boobu parce que xam nañu seen député ci seen wàllu bopp d' pour une fois les députés quand ils sont eux-mêmes concernés ils sont pas d' accord. jërëjëf honorable député. donc euh, mu nekkoon euh, honorable député Thierno Alassane Sall bu République des valeurs déjà moom fii sujet na.